La guerre en Ukraine et ses conséquences s'invitent au Forum économique africain d'Abidjan en présence des chefs d'État du Sénégal, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Pour le président Macky président en exercice de l'Union africaine, la menace de famine en Afrique est bien réelle puisque les engrais ne sont pas encore libérés et l'hivernage pointe à l'horizon. Le chef de l'État invite les différentes parties à trouver un mécanisme d'exportation des engrais vers l'Afrique pour approvisionner le continent comme c'est le cas avec le gaz en Europe. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie prévoit deux événements pluvieux orageux du 12 au 15 juin et du 17 au 19 juin. Selon les prévisionnistes de l'ANASIM, les orages et les pluies devraient progressivement intéresser tout le pays au cours de ces deux périodes. Ce mardi, le juge d'instruction du tribunal de Thiès a placé sous mandat de dépôt un agent de l'hôpital de Tivaouane Dans l'affaire de 11 nouveau-nés morts dans un incendie, il s'agit du chef maintenancier de l'établissement hospitalier. Il a été inculpé pour homicide involontaire et placé sous mandat de dépôt. Il devient ainsi la troisième personne inculpée dans cette affaire après la sage-femme et l'aide infirmière. En Afrique, au Burkina Faso, trois jours de deuil national ont été décrétés la mémoire des de l'attaque de Seitenga dans l'est du pays. Samedi après-midi, les habitants ont subi une, un assaut meurtrier d'hommes armés. Il y aurait 79 victimes selon le dernier bilan des autorités. Selon l'armée française, opération de la force Barkhane près la frontière entre le Mali et le dans la nuit du 11 au juin a permis l'arrestation d'un haut cadre de l'organisation d'État islamique au Grand Sahara. L'homme dirigeait les opérations du groupe terroriste dans la région du Gourma, au Mali et dans le nord du Burkina Faso. A rappelé que les militaires français devraient quitter le Mali pour de bon à la fin de cet été. Sur l'international, une panne informatique du service suisse de contrôle du trafic aérien apparue tôt la matinée de ce mercredi a conduit à la fermeture pendant plusieurs heures de l'espace aérien de la Suisse. L'aéroport de Genève a annoncé une reprise progressive après une paralysie complète. Des vols internationaux à destination de la Suisse ont été détournés, notamment vers les aéroports de Milan, Francfort et Munich. En sport, l'équipe nationale masculine de basket du Sénégal sera en stage de préparation du 22 au 27 juin avant de s'envoler pour l'Égypte le 28 juin. Ainsi, l'entraîneur Boniface a publié sa liste hier mardi. 18 joueurs ont été convoqués pour cette troisième fenêtre de la zone Afrique de la qualification à la Coupe du Monde 2023. La tanière enregistre les retours de Clembin Hanan et Gorgui Sidien absents lors des derniers matchs. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.